alors euh, ñu ngi fii ba tey fii nga xamante ne mooy Grand Théâtre ñu daal di fii ñëw nag ci programme bi nga xamante ne mooy guddi gu mag euh, bi nga xam ne rek ñii di euh, waa polygame ñoo ko daal di organiser gis ngeen nag ñi nga xam ne ñoo artistes yëpp dañoo daal di ñëw si leen ci seen guddi gu mag gi ñu daal di taxaw ak nag ki nga xamante ne kenn dootu leen ko présenté muy artist moom tamit nekk Thiès muy Vieux Meles Meles na mu lañ na de. Vieux Meles Tikul Gajaga maa leen raw. <laughs> waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di nuyu àdduna bi yëpp rawatina Thiès bi nga xam ne fa dëkk falaa juddoo falaa amee lépp mhm. maa ngi leen di jiital si nuyoo bi di si teg waa Dakar yi fii ñu teew tey di si teg Sénégal bi yëpp ak fu waay mën a ne rek di mhm. bégge Vieux Meles maa ngi lay bégge mhm. waaw di la jox xol bi waaw kon kon kon nee na jox na leen xol bi jël leen te ngeen delloo ko yéen tamit xol bi. jeex na tàkk <laughs> ay ca mi noonu. bien ah, ah, tey ñëw fekk la fii nga xam ne mooy Grand Théâtre comme ni ma ko waxee ci guddi mag gi nga xam ne waa Polygame dinañ koy organiser di Polygame sur scène ah, tey duñ la laaj lan moo waral sa teewaay ndax ñun yéen ñëpp bokk fi nga xamante ne mooy Thiès mais tey lan nga ñu mën a wax ci initiative bi nga xamante ne waa Polygame daal dinañu koy def ñëw daal di indi seen théâtre teg ko sur scène. bon ci côté initiative bi bon amul ñu ci wax lu dul euh, ñaan yàlla mu yokk quoi parce que polygame yàlla dafa dogal ñu nekk ci benn lancé créer benn affaire àdduna ñëpp bëgg ko mhm. aussi doon xaar lii quoi mhm. doon xaar lii pour diir vrai mhm. kon tey mën naa ne bu entouré dañuy ne sant yàlla te di leen ne aussi bon spectacle waaw ceesa ak àdduna ñëpp ngi seen ginnaaw toog di leen xaar waaw ñu pour daal bëgg kontaan ci ñoom tey mu mel ni dañuy faral di wax ni théâtre sur scène dafa dee tey euh, ñi nga xamante ne ñooy waa polygame daal di ñëw indiwaat théâtre sur scène daal di koy indi teg ko ci kaw scène bi tey lan nga ñu mën a wax ci loolu en tant que artiste tey dañu doon wax ni lii di théâtre sur scène dafa dee fii ci réew mi. non wax théâtre sur scène dafa dee pour man ñooñu dañoo xamul quoi mais gars yi ñi ngi produire ba tey gars yi ñi ngi def ay création ba tey di teg di yóbbu fu ne ci réew mi mm-hmm. donc buñ ne théâtre sur scène dafa dee rek. bon damay naan peut-être dañu a réer wala dañu xamul exact lan nañu bëgg a wax quoi parce que certes Sénégal yàlla moo dogal euh, ci côté téléfilm bi la ñu gën a def focus. Mm-hmm. booy xool ñëpp moom la ñuy suivre et tout quoi. Mm-hmm. mais ñi koy def yëpp loolu tamit moo rey théâtre sur ñi koy def yëpp dañuy tourner après ñëwaat sur bi. Mm-hmm. mi ñun di keneen ak keneen. donc c'est juste tamit aussi des fois mooy li rek peut sens mi ngay am wala opportunité yi nga am yëpp ci côté téléfilm bi moom nga dul am sur mhm. moo tax mu xaw doole bi xaw a wàññiku mais musul dee fii. Mhm. te du mës a dee. Mhm. kon vieux li mu wax rek lañ koy dañ ko koy dëggal muy théâtre sur scène li mu wax mooy mi ngi dund ba tey deewul ni li nga xamante ne mooy tey téléfilm yi teewee noonu rek la théâtre sur scène aussi euh, teewee si kaw seet bi euh, tey nag lan nga lan nga ñu mën a wax ci polygame euh, yow mi nga xamante ne toog nga seetaan ko en tant que artiste lan nga ñu mën a wax ci polygame. ndax polygame munu yow ma rek ci soog toog seetaan ko polygame début bi ba fu mu bon mun naa ne ba ay lu lu mujj rek laa fekkewul mais début bi c'était technicien ci biir polygame cadreur début première saison yi bi yëpp quatre cent onze épisodes yëpp aussi yàlla dogal ma participer ci lu mot ay cinq séquences xaw ma cinq épisodes mhm. donc mun naa ne polygame maa ngi ci biir quoi mhm. maa ngi ci biir. da bokk ci biir. waaw loolu la yàlla kon sa yëf la. <laughs> sama yëf la kenn mënu ci dara. <laughs> alors bien euh, ñu ñu gëj la gis aussi lu bëri ci li nga xamante ne mooy euh, théâtre yi comme ni ñu la daan gisee euh, dañ la dañ la gëj gis vie ci lan la nekk. Ah, vie mi ngi ci ginnaaw caméra yi rek. Mm-hmm. parce que yàlla dogal nañu doon ay acteurs. Mm-hmm. def ci ay at. Mm-hmm. bon def formation bu ne aussi. am xalaat expérience bu bëri bi nga xam ne peut-être yàlla dimbale nañu dimbale nañu ñu am sens su am ko. ci biir théâtre bi mhm. donc ñu ne pourquoi pas mu am leneen luy nelaw ci ñun tamit ñu dem yeewi ko mi partie technique bi booy xool durant li nga ñu gisul yëpp li nga ma gisul yëpp laa wax ci loolu laa nekk mais teewul vieux acteur la ba tey mhm. mm, saa yuñ ko soxlaa wala saa yu prêt pour defaat defi leneen mhm. day génn solaat ay costume am dem jouer gars yi ñu kontaan ñu bëgg parce que dama am loo xam ne sénégalais dama ko warloo ñoom donc du yoon may quitté scène. mënul mhm. nekk sama deret la ne. Mhm. dañ ma bëgg te aussi damay dox ñu ma koy wax. mais c'est juste daa am lu may suivre rek. Mhm. bis bu ñoree rek dañ ma gisaat incha allah ma ñëw. kon mën nañu wax ni kon Vieux du théâtre kese la mën. non mukk. maa ngi si ginnaaw di def lépp parce que tam dafa baax aussi booy def benn affaire bon nga xool tamit li wër affaire boobu yëpp. bu si ne nan nañ koy defee bu si ne nan nañ koy defee mhm. yow mi en tant que acteur sa ça te permet yow tey boo nee sur scène tey mhm. nga xam kii lan la lay defal mhm. actuellement kee di jël sa voix nan la fan la toll si yow lépp daal nga xam ko quoi da lay permettre nga complet quoi alors bien dañuy faral di wax ni artistes yi ànduñu booloowuñu ndax dañuy faral di gis des fois ay coow entre artistes surtout artistes artistes yi nga xamante ne dañuy def théâtre gis nañ fi ay coow yu bëri yoo xam ne weesu na fi temps yi passé ci artistes yu yi ak ci yeneen artistes mhm. tey lan nga ñu mën a wax ci li nga xamante ne mooy coow yooyu di am entre artistes ñoom ñëpp ñu bokk li nga xamante ne moom la def bokk benn but bokk fi ñu jëm waaw coow moom mi ngi fépp c'est weex dunk rek mais ku dem ci gouvernement bi fekk homme de tenue dañuy coow seen biir journaliste yi dañu coow seen biir mais après bu nu coowee jeex na dañuy ñu régler ko c'est juste mooy li ñu ñun ñooy feeñ ci écran yi. moo tax suñ coow àdduna ñëpp koy bëgg a toog di ko wax. comme si que ñun à chaque instant boo ñu gisee dañuy coow. mais du dara ay détails la rek yu ndaw yoo mënul ñàkk ci ay nit. ay xar doo fekk ñuy bëkkante nga naan non yam leen li lii tax nga leen interviewé loolu la rek c'est juste peut-être dafa am benn malentendu bu am seen biir yàlla dogal loolu am ba tax tey. nit ñi mu di si wax quoi mais coow yi fi am yëpp bon réglé nañ ko de pour man gisatuma fi benn coow ah Sénégal mm-hmm. ñan ñoo coowati. ah <laughs> coow dafa amoon. a ah, <laughs> coow boo amoon ah coow bi jeex na. waaw jeex coow loolu bu mu amee yow yan jéego nga ci dox en tant que artiste. man ah toog sama kër ñaan jàmm ak salaam ñu delluwaat si jàmm ak salaam ñoom ñooñ di coow. Mm-hmm. wax dëgg yàlla soluma dàll dem ci kenn ci ñoom. jëluma téléphone it woo kenn ci ñoom tooguma kenn ci ñoom di ko wax loolu. moo tax loolu. da ngay enregistré comme ñoom nga dégg coow li. coow bu nekk si ne ak fi mu fi am wala ay magam jëmm lan ba ñuy xamante di commencé di def théâtre na si ñoom laa débuté mais boobu fekkeewu ma donc ay mag bu ñuy coow nag pour man xale bi dafa war a toog di leen xoore te xam ni tôt ou tard dañu àndaat dañu trouver terrain ba mën a ànd te je pense que léegi am na parce que ñoo ko dëkk Thiès te dafa lu ma dégg si coow boobu yëpp passé nañ loo xamee ni sax jafe na nga gis ko ci ay ñaari nit. donc ñoon bu ñu coowee rek pour ma ñi wax coow sa du coow mais réeroo la réeroo la rek te réeroo kenn ay feeñ rek woo moroomam mu ñëw ngeen àndaat dem mhm. wala kenn toog ne mag peut-être boo xam ne xam na lépp. Mhm. woo leen boole leen waat rek ñu àndaat. kon dañuy dégg ci sa wax ne réeroo amul ñàkk waxtaan rek moo am. ñàkk waxtaan la rek. <laughs> Euh, kon tey jamono ji mën nañu wax Vieux ci lan la nekk à li nga xamante ne mooy série koor yi nga xam ne dañu ciy xaar chaque mhm. année à part loolu ci lan nga nekk à part aussi technique bi nga xam ne yaa ngi ci ndax Vieux dinañ la woo ci yenn série yi nga xamante ne dafay faral di daw ci réew mi ndax di nga toog des fois ñu woo la ci benn série. pour dire vrai nii ñi may woo yëpp sax ñu si bëri si parti peut-être li may joué la composition bi te damay bañ quoi damay taxaw parce que loolu man la quoi parce que nit ku ne tamit bon yaa xam sa carrière nan nga ko bëggee ak fan nga bëgg mu dem ëllëg ñu may woo yëpp si parti bi mais ci beneen rôle def benn laa si jot def je pense mi intimité te boobu ñun la woon sax ñoo woon def beneen affaire ñu créer loolu def intimité quoi mais bu dul loolu moom vie nekkul ci leneen lu du ci partie technique bi peut-être sama spectacle yo xam ne man maa ko moom yoo xam ne bon sama calendrier la quoi loolu moom mënu ma ko ñàkk bañ a def. Mhm. mais bu dul loolu maa ngi ciy technique bi quoi. kon kon ci liñ la mën a ci côté théâtre mooy euh, koor yi xam ne yaa ngi pour dire vrai moom actuellement moom ku bëgg gis vie rek na ma xaar ci koor yi quoi. koor bi wa peut-être nag bii bu jeexee ñu ñëwaat parce que mhm. tamit am na loo xamee bon ñun ñoo ko tàmmal euh, askan bi mhm. donc ñu ñu si xaar mhm. mu am ñoo xam ne ñun ñoo tax ba tey toogaatuñu toog seetaan télé parce que mhm. gisatuñu donc ñooñu am na loo xam ne waruñu sax ñu munuñu ne bàyyi nan parce que lii moo nu may luñ am lépp ku ñu gis naw ñu moom moo ñu ko may donc munuñu ko ba quoi c'est juste mooy li rek daa am lu newoon suñu bopp di nelaw moom la ñuy yee rek bis bu yeewoo ba sol tubéy rek sangu sol tubéy sol yére rek ñu ñëwaat boole koog moom. waaw noonu la sax incha allah ayca merci beaucoup Vieux. ayca kontaan ci yéen dégg <laughs> naa. <laughs>